yàlla na nu yàlla yendale noonu ci jàmmam nu yànd ak ci dars fajar yi ba tey ñu toll ci sunu dars allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal na ma yenent bi alayhi xamal na ma ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakatal fitri min ramadan saa'an min tamrin aw saa'an min sa'iirin alal abdi wal xurri wal zakari wal unthaa wal sagiir wal kabiir minal muslimiin rawaahu jamaa yonent bi jàngal na ma yonent bi xamal na ma ci hadis ibnu Omar nee na yonent bi alayhi salaatu salaam farataal na ci jullit ñi azakay muurum koor mu nekk ñaari kilo ci tàndarma walla ci dugub walla ci bele ci bépp jaam boo xam ne gor la góor la jigéen la xale la mag la bu fekkente ne jullit la kon yonente alayhi salaatu moo farataal ci ñun azaka muurum koor mu nekk ñaari kilo yoo xam ne soo amee tàndarma nga joxe soo amee ceeb soo amee bele soo amee mboq soo amee dugub ci képp koo xam ne jaam nga war nga ko génne alal abdi jaam wal xurri gor war na ko génne wal zakari góor war na ko génne wal unsa jigéen wasaxiir xale wal kabiir mag maadaama ab jullit nga yëgal na yonente alayhi salaatu wasalaam farataal na ci yow azakay muurum koor soo ko amee danga ko war a génne ba tey yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal ñu mu ne yu'ti wa kaana ibnu umar yu'ti at tamra illa aaman waahid axwaza tamru faata sair ñu ne abdullah ibnu omar moom dey daana joxe tàndarma am na benn at boo xam ne tàndarma yi dafa fënëx yàqu abdullah ibnu omar daa di joxe dugub nee na wa kaanu yu'tuna qabla al fitri bi yawmin aw bi yawmayni asaka murum koor mën nañ kaa joxe bu julli gi desee ñaari fan wala mu des benn fan ndax nee na imaam Buxaari nee na sahabatul kiram doon nañ joxe asaka murum ci ñaari fan wala benn fan hadisu abi said nee kunna nuxriju zakat al fitri saan min taamin aw saan min sairin aw saan min tamrin aw saan min oqtin aw saan min min zabib abi sayd nee na ci jamono yonent alayhi salaatu wasalaam nekkoon nañ di génn azaka muurum koor ñaari kilo ci lekk wala ñaari kilo ci dugub wala ci tàndarma wala ci diw wala ci lépp loo xam ne yàlla tabaraka wa taala dénk nañu ko ñu ko doon dundee doon nañ génne ci loolu azaka muurum koor kon doomu ndey mbokk yi ci yàlla azaka muurum koor a ngoog ci ay ci njàngale nu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu war koo génne waaye lan mooy jubluwaayu génne azaka muurum koor lan mooy jubluwaay yonent alayhi salaatu wasalaam daal ni koy sant ba ibnu omar ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam amara bi zakatil fitri an tuadda qabla xuruji nnaas ila salaa abdulaay ibnu omar ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal na nit ñi ñuy génne azaka muurum koor balaa ñuy dem ca jàkka ja waaye jubluwaay bi lan la ibnu abbas moo ñu wax lan mooy jubluwaayu génne azaka muurum koor nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam farataal na farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al fitri tuhratan lissaimi min al lagwi wa rafathi yonent bi alayhi salaatu mooy ki farataal ci jullit ñi azaka muurum koor ndax lan mu leen di laabal ci ay mbóosóor ak ay caaxaan ak ay sëy mu nekk tuuma lil masaakin waaye lekk la goo xamante ne miskin yi dinañ ko jëriñoo nee na fa man addaha qabla salaati fa hiya zakatun maqbula képp ko jox ku ko joxe balaa ñuy julli ji kooku day yàlla dina ko ko nangul wa man addaha baada salaati fa hiya sadaqatin min as-sadaqat mbirum àdduna jàppee rang ci ay tailleur jëndi loo lekk ba nga yéex a génne sa azaka muurum koor yëgal ne sarax nga am rek comme sarax yëpp amoo azaka muurum koor loolu tax yéexe ko musiba la Cheikh Abdoul Aziz Bin Baz nee na képp ku ko yéexee war ngaa tuub dellu ci sa boroom yëg ne def nga bàkkaar bu rëy nga jéggalu yàlla ci yéexe gi nga ko yéexee loo xam ne dañ la ne woon génne ko balaa ngay julli ji nga dem di ko yéexee yow def nga njuumte lu rëy war ngaa jéggulu sa boroom kon mbokk jullit yi ndeke génne azaka murum koor day laabal ki wooroon ci caaxaan yeeg ngóosóor yeeg yenn yi nga xam ne amul bopp amul geen yu ñàkk fayda nga woroon di ko def azaka murum koor daf la ci setal ñu war a góorgóorlu bu baax sàmmonteeg njàngale nu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lii mu jàngale ci lii mu wax ci lii mu leeral kenn ku nekk ci ñun war cee góor góorlu ba du ko tardeel du ko yéexee mu xam ne njàngali nu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la moo farataal ci jullit ñi ñu war a génne azaka muurum koor jële ko ci ñi am yóbbu ko ci ñi ñàkk mu nekk luy laabal ñee waaye mu nekk dund pour ñee yow bu la yàlla dimbalee ba mbir mi nekk lu lay laabal mu nekk ñi la seen ñam waroo tardel ñami jàmbar ñam ñami jàmbur ba pare yow lu lay laabal waroo ko yéexee wallaay sunnaal nañ ko sax ci liir bu ndaw dañ ko koy génneel même ki ëmb sax dañ ko koy génneel ki ëmb boroom këram na bàyyi xel ne day génneel soxna si génneel ki mu ëmb dana dagan loolu la boroom xam-xam yi jàngale bañ ko yéexee joxe ko képp koo xam ne dundam ci sa loxo la nekk nga génneel ko ko saa yoo ko génnee mu nekk sarax yàlla nangu ko su yéexee nag nga perte azaka muurum koor ñu soññi ci mbokk yi jàppalante ci ndax miskin yi ñoo lay xaar ñi soxla ñoo lay xaar ñi amul ñoo lay xaar ñi war a taxawu seen julli korite ñoo lay xaar kon yow bul ko tardel ndax yonent bi nee na ñooñu seen ñam la ñaan sunu boroom jalla jalaalu wa azza kamaalu borom màgg gi moom yàlla mi nu may nu fekke néeg ren nii yal na yàlla may nu fekk néegi ni déwén